aywa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, ñi ngi sant imam di ko ñaanal borom bi tabaaraka taala mu defal ko tawfiq euh, xam-xam bi fi sotti yaatu na lépp mu def ko ci misaan xasanaatam euh, xam naa li mu fi wax lépp moom bari na bari goo xam ne xam naa ne jàpp ko du yomb waaye am na solo yëpp am solo bunt yi miraas yeeg bunti xam-xam yeeg bunti alxuraan yeeg ba ci bunt aj gu ma jigi alhamdulilah yaakaar naa mbokk yi dégg nañ ko. mu am lu mu tàmbali woon wax ci tàmbali bi rek mu am lu ma ko ci bëgg a laaj moo maanaam euh, Arabie Saoudi comme ni nga wax ne ci départ bi euh, maanaam mooy fa yàlla moo gën a jafe jaamu fa yàlla léegi comme yéen ñi nga xam ne yéen a féetewoo Sénégal yi nekk ci daaw bi yan bunt wala yan yoon la ñu war a mën a jaar ba jege xam naa buñ ko amul ñu jege lu mel noonu euh, loolu daal moom bëggoon naa cee am ci loo ci wax tuuti incha allah. waaw xam nga. réew moom euh, ci ñaari fas lay doxe loolu su lanu su su nanu tadaafoo muy xëccoo diggante lu baax ak lu bon euh, day continuer ci fu nekk waaye mépp réew moo xam ne fexe nañu ba waxkati lu baax li ñu baax yi ëpp fa seen kàddu gën a jóg boobaat lu baax day not lu bon su boobaa nit ki li muy sawar a wane mooy lu baax li muy rus a wane mooy lu bon arab Saoudite dañ fa def yu bon dañ fa def yu bon ba am na ci bal bo fa yagge deug ba commencer di jaxaso ak uh, saoudien yi di and ak ñom di dem ak ñew yenn say sa nopp daj loo xamne da nga na aw la nu meuna nekk wala yenn say sax sa beut yenn say sa beut waaye do ko gisee ci mbedd mi comme niñ koy gisee fi parce que fofu la lañ fay encourager muy feus moy lu bax sen damay ragal ne fi nak xeyna man na bañu do bañ sax liñ fi encourager muy feus moy tudd moy lu bon bo nekkon arab saudite do am problème mu julli jot nga ne na jak jàdd ci jak ci julli mais yeen bo nekké ci sen auto tourisme yi di war di visiter sen place yi fan nga mën a jékke rek jàdd jëluk sata la japp julli kon ñom dañu promouvoir lu bax mu gëna tassaro tasaaroo yeneen zone yi ñom promouvoir lu lu bon mu gëna tassaro lor motax moo fa yalla gëna yomb euh moye ko fa ñu nekk suñu rew xëy ci digg bi lañu ci digg bi lañu ndax waxkati yu bax yi Eh, ëppuñu fa kàddu ba lu baax tasaaroo fa comme nim mu tasaaroo Arabie Saoudite waaye defkate yu bon yi itam ëppuñu fa kàddu ba lu bon tasaaroo fa comme ni mu ci yeneen i réew yu mel nii léegi nag mu des kon ñi ngi xëccoo sunanu tadaafo ñi ngi bësante lu baax ak lu bon ñi ngi bësante kan moo gën sawar <laughs> pour bës sa morom kan moo gën a am courage pour gën a yàgg ci bësante bi pour sa morom toqi nga gañe ko foofu mooy wax ji léegi daawa bi lim laaj ci ñun mooy lan mooy njëkk xam-xam alhamdulilah léegi daawa bi macha allah léegi kenn sikki sàkkawte xam-xam Sénégal xale yi fay jàngee yor ay doctorat di jàngale ñu yéen ñi ci suñu loxo lañ jaaroon ci xale yoo xam ne maa leen jàngal eh, certificat am nañ doctorat ba dellu kon léegi daawa mu alhamdulilah xam-xam waaye léegi mu des taxawaay ndax taxaw nañ taxawaay boo xam ne Euh, daawa bi am na personnalité personnalité boo xam ne may na ko fu mu bëgg a waxee ak lu mu bëgg a wax wax ko ci anam gam ko bëgg a waxee sans complexe sans dara loolu la loolu la laaj alhamdulilah niveau bi ñu toll nii ci Sénégal ci diggante daawa ak autorité yeeg yeneen yi mooy niveau tolloo xam nga jamono ni muy doxee yàlla ni muy wuutalante nit ñi comme ni mu ko waxee xalifa inna jaal na filaati xalifa mooy ay génération yu wuutante ñun ñi nekk fii yëpp xëy na magante nañ ak ay daanaka yenn benn âge lañ vingt ans avant ñun ñee ñun ñii ñëpp daal ñu ci bëri ci suñ suufu kilifa lañ nekkoon moo boobaa suñ kilifa moo doon gérer kër ga moo doon ki ñun dañu doon sant ñuy def rek mais fi mu toll nii ñun ñooy gérer fi mu toll nii ñun ñi ñooy gérer suñu kilifa tuñ vingt ans ci kanam suñu doom yii ñooy ñëw remplacer suñu di gérer noonu la réew ma tëddee kenn vingt ans avant. buñu Minister ministre sangam ci télé bi nga koy gisee do ko xam do ko dégg mais fi ñu nekk ni tay buñ la tuddalee ben ministre wa ñaar nga ah non kok ki kok, sama boy la ñu ministre ah non kok sama promotionnaire la mais ah non kok mo sama mag jang do kon ñun ci daawa bi ak ñi jité réew mi légui genn maas lañu genn maas lañu wala fi di wax nak né euh, bukki bu déwé jambar ci doxine wala lool rek mo des légui ñun ci daawa bi nan lañ ko yenoo ndax taxaw nañ taxaway bu pësteefu boo xam ne wane na ne ñun pare nañu pour taxawee daawa bi ñeneen ñi respecté ñu ci loolu loolu moo des euh, instant bi fa Sénégal man jàpp naa ne euh, sàkku ndimbal pour daawa bi dañ ko war a dépassé parce que fi ñu koy sàkko ji ñoom li ñuy def du ñun loolu la ñuy def wala wala ñoom li ñuy def ñun mën nañ ko bu dee dañuy jaay ëpp nañ ñu compétence su jaay bu dee dañuy liggéey ëpp nañu compétence su liggéey bu dee dañuy business est-ce que ëpp nañu compétence su business kon li ñu war a def mooy jàppante nekk benn encouragé ñiy jaay ci ñun encouragé ñiy business ci ñun encouragé ñiy def leneen ci ñun malheureusement yenn saay loolu amut man ci sama liggéeyu aj màkka ma bañ a am benn mbokk bu inscrire ci man pour ànd ak man moom a gënal ma am mbokk bu inscrire ci man malheureusement gàllankoor yi la mbokk bi di tegal moom ak ndëgg sërëx yi mu lay tegal ci wax ak ci jëf ñeneen ñi nga xam ne boo leen jëlee dañu naan la imaam imaam imaam imaam doo doo doo ko ci fekk far sax mu sax doo am bokk sax far dañuy toog di sànni xëri seex naa fay bu demee du la dëkkal fu baax bu demee du fekk est-ce que li nga fay encore itam dëppoon ak la ngay demandé boo bàyyi woon seexu naa fay tey dem jël keneen la nga koy fay mooy ëpp la ngay fay te boo muy tut service bu la seexu naa fay defal bu muy tut doo ko fekk mais da nga taloo la loolu da ko muñ da ko muñ mais doo ko muñal seexu naa fay loolu problème la loolu problème kon ñun ñoo des ñun ñun ci suñu développé daawa bi ak xëccoo bi ñu toll nii ak euh, lu baax ak lu bon ñun bi ñu toll ci di bësante nekk fifty fifty kenn gañegut sa morom pour ñu gañe dafa des ñun ñu taxaw taxaw taxawaay boo xamante ni si ne li ñu war a posé ci ci ci économie gu ma dañ koy posé taxawaay dañ koy posé daawa yi tam ñu posé su boobaa rek ñun ñooy gañe waaye bu ñu continuer ci ni ñuy doxee moom itud <laughs> yàlla yàlla bu loolu am yàlla bu loolu am. régime bu bees ci wàllu inscrire maanaam accepter diplôme xam nga loolu problème la bu bu bu yàgg euh, xam nga arabisant yi compétence yu nekk dafa nekk ci ñoom. am na ñoo xam ne bu ñu jógee fii ci bu ñu jógee Sénégal dem jàngi ñuy médecine lañ jàng yu mel noonu bu ñu fa sax dañoo dem ci réew arab yi di liggéey fa ci hôpitaux yi lu yàgg soo faa jógewaat ñëw Sénégal ñoo xam ne sax bi ñëwee dañu faa ubbi ay ay cabinet continuer di faj mais ñooñu mënuñu woon a dugg mukk ci e, liggéeyukaayu Sénégal yi ndax arab arab lañu jàng tey pourtant dañ leen di soxla man arab laa jàng sama njàng mépp yàlla natt na ma sax français ma ci dara parce que man xam nga comme Touba laa juddoo bi may juddu sam papa ne dafa dëkkoon ab dëkk ñu wax campement ko xëy rek ramassé fa la mu fa amoon lépp mbàyyi ko ne gàddaay na dem Touba. yàlla dogal ma gane fa àdduna mu tuddee ma suñ Touba léegi bàyyi ma bi ñu demee ba école française bi dugg Touba mu dem inscrire mag ma nit boobu toll naa ci jàng ma ngante du bëri damay daw papa damay jàng papa damay mu jiital ma fa indiwaat ma ci kër gi damay doo jàng français bi ma toogee ba kii mu jël ma yóbbu ma ci daal daara mu ndeke comme sëñ Tuubaa la ma tuddee moo tax mu doon wax doo jàng français pare mu yóbbu moo jàngi alxuraan jàngi kii jàng arab ba may am bac euh, pour euh, démarche pour dem wuti bourse amul ma toog Dakar commencé liggéey ak njaboot bi Cheikh Mohamed ubbee école am bi ma dugg fa jàng fa am maîtrise am kon man waaye teewul 2003 euh, bi ma boobu maa ngi jàng ci kullier bi parce que bi may jàng comme amoon naa njaboot am benn ONG arabe bu ma doon liggéeyandool ma ne leen léegi dañoo ubbi fii benn faculté tam bëggoon a jàng ñu ne jàngal danañ di continuer di la fay ñu commencé rek aleykum salaam benn at rek quelque ñu arrêté fay gi ah léegi nag dëkk Dakar yor fa njaboot ak soxna di fay location amoo fa sukkandiku mënul nekk commencé di xalaat lu ma war a def lu ma war a def ma war a ma créé ma hatta aleem loxal arabe kibaar maanaam lu ma tudde incité buy jàngal mag ñi arabe C'était un cours, le cours, cours de soir. Samedi et dimanche, 8h, 9h30. Mais je suis allé à l'université, parce eh, que je suis Alhamdoulilah, il eh, y a deux écoles. Une qui parcelle, et une qui est IPG. Sacré-Cœur, c'est Gwal Fadjiri Ndiakar. Je suis allé à la classe, au buffet, il y a des affiches. Il y a 115 personnes inscrites, qui ont inscrit 5 000. C'est ce que je sais. yàlla dogal ci même année boobu 2003 boobu ñu ñu dem Màkka invité de roi ñu bi may bi may ubbee institut bi nag mu des na ma defar ay ab livre bu baax pour mën a jàngal mag ñi al euh, arab euh, ma gis euh, maaxa taalim loxal arab li xëri naatiqiini biha bu soxna livre bi mu taalif baax na pour jàngale langue arabe mais dafa sawujee ba mu ëpp azhabu a makka azhab ila al madina xam nga loolu boo toogee Sénégal gi di ko jàngal ku nekk Sénégal day problème may takale livre boobu pour mu nek sénégalais pour mu sénégalais di effacer makay yi di ko di bindar dakar yenn say leçon yi ni mi teudé leçon yi ni mi teudé duma convaincre damay bëgg comme yenn say nga dam ji yenn mawdu adi ci benn ki damay dag passe be dag kol ko fe photocopie ko daggaat dugal fe kolat photocopie mu nek passe voilà ci lolu waaw bu ci loolu ma ne maa ngi université laa nekk di def loolu de dama daan xëy ba jantib si yendu foofu noonu pour créer livre pour créer mais def naa ko ba créer livre premier niveau deuxième niveau troisième niveau parce que ñetti niveau laa ko defoon niveau bu nekk cinq mois lay doon boo defee quatre niveau yi da am certificat am na ñu jaare ba yor seen bac arab fi mu toll nii di làkk arab Serigne Mbacké Cissé ci ji foofu la jàngee foofu la jàngee arab léegi bi ma demee université Dakar dugg seen mosquée am na chambre imam am na ñaari ordinateur ordinateur bu mag boo ñuy français ak benn bu ndaw pencum un xaw ma sax mat xaw ma Celeron ah Celeron voilà Celeron mais arabe la woon ma ne leen est ce que am na ko mën a jàngal euh, fii nii ñu ne ma waaw diw mën na laa jàngal mais gannaaw fajar la lay jàngal man parcelle laa dëkkoon mais bu dérangé wu ma gannaaw fajar ma déparé parcelle ñëw gannaaw fajar mu jàngal ma ci ordinateur français bi ma appliqué sama bopp ci bu arabe bi biñu paré commencé di jang tapé yoyu mu jël ay texte jox ma ne ma tapel ma tek ko né génne sama sama sac sama livre commencé tapé on oh, am naa lu ma tàppe di 2003 bu ma demee makka ma jënd ordinateur pencom 3 mu toll ni ñu mëna a jënd ordinateur jënd sama imprimante xiis xiis xiis xiis yooyu voilà HP non de disque Z ma jënd ko ñew tek sama objectif moy lan moy défar sama livre di télécharge sa ay photo ak ay dessin ak yoy pour man defar sama livre alhamdullah nek na ci ba defar sama sama livre gannaaw bi ci la arab sama bu yoy ah sa seexu na seexu naa am na ordinateur kay ku ñëw ah, tapel ma fi tapel ak gaay niñ fexé tapel ba rek nga tapel imprimé jox ko mu dal di dëngalu ba yag ma dal di bind ci buntu néeg bi imprimante bi cartouche lay jël te du maye ordinateur bi courant lay jël te du maye kuma ci tapel da ngay joxé téeméer gaay commencé nak comme légui ki la fay la ah tapel ma tapel ma tapel ma tapel ma ma ko ma se di tapé nekk tapékat ma bu ma jàngee kulé bu ñew rek mo se tok di dóor ba yag kenn ah, oustaz dama bëgg won ma ni ñu talé ordinateur gi kii mëna kay ci ñewul mu commencé won ma ah ñaar ñett commencé di ñew ma wutaat benen ordinateur tek légui doy légui 5000 la <laughs> légui ñaar ñett ñent commencé di ñew mo dem ci jaaka ja ni leen abal leen ma néeg bi ci koñ bi ñu abal mako ma dal di fay ubbi centre de ko asalafee lil hasub màgg na ba finalement ma jëlat magasin ci côté jakk ji yok ko ci euh, loolu màgg na develop mu ñu tuddu la renaissance pour l'informatique may ma nag léegi maam outil ci informatique jamono joju nonu ba do informatique sax moy xam bureau bureautique ah. bureautique Word Excel PowerPoint euh, ak Windows ak yoy nonu. commencé di ci former arabisan yi ak euh, nuñ koy waxe dekt dekt lo xama tapé ma nek ci lol nak mom jëlaloon na moom liggéey parce que man man na naa xëy sans passeport par bis sans passe dama dañ xëy tàppe ko par bis tok tok fajar ba ti bëggee légui bima jàngé jàngee kullier ba pare 2006 institut islamique dafa amone école formation bu ñuy former jàngalé jàngalekat yi enseignants yi ñoom ñoo ma jël fofu pour may former enseignants yi. en même temps itam sob sob la woon naa ba mën a développer site internet ak yooyu noonu mu proposé leen développer leen seen site bi développer ko ak benn mbokk mu rafet lool après ma toog di ko gérer ñu jël ma ci loolu ma nekk ci loolu 2006 ci laa nekk 2006 mil 2008 ñu informatiser pèlerinage bu njëkkaan visa yi dañ daan dem jël ay kayit di bind di kii di taf léegi nag ñu Arabie Saoudite développer système boo xam ne da ngay dugal données yëpp imprimer sa visa taf sa léegi consulat nag euh, ne ne waa mission bi dangeen am koo xam ne dana man informatique ci arabe te gaaw ci tàppe koo xam ne mooy gérer affaire yi affaire bi jaaxle tu ko fu ñu koy jëli ba ak ñu ne seexu naa fay ñu woo ma téléphone dañ laa soxla ci commissariat bi nanga nag moo ñëw fekk consulat bi yëpp ñu chargé ma mission boobu noonu ma yore visa électronique loolu maa ko njëkk a def Sénégal boobu 2008 2009 ujaaj Sénégal yëpp maa leen defal voilà ñëpp maa leen defaral visa kon man xaw naa man tuuti informatique année boo ci ci laa commencé dem màkk itam encore yore informatique ak secrétariat ci ci ci mission bi xam nga kon man man naa am na lu ma man tuuti ci informatique mais teewul charia laa jàng léegi ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom dañoo dem Égypte jàng fa informatique nekk ay ingénieur comme ñeneen ñibbi si ñu def leen imam teg leen ci elbor déedéet ñu def leen ustaasu arab yàlla da koy nattu sax kooku noonu arab sax far du ko far dégg waaw parce que toppatoo ko am arab moom dañ koy jàng toppatoo ko ba noppi di ko làkk di ko liir mu mën a dëgër ci sa làmmiñ léegi nag mais kooku forcément oustaz arab la la la nar a doon su bëggee dugg fonction publique man bi may jógee institut islamique bi ma fa defee noonu ba 2010 ñu proposer ma embauché neexuma ma ne leen dama fay jóge boobu maa ngi sama maîtrise mais au moins woon benn soir ñaari soir rek ma nekkuñ sama kanam. continuer sama école privée yi ma doon taxawal ak yoy noonu do nek fonction publique ak dem jàngale ji élémentaire ma ci soirée malgré bobo xawna naa jekk parce que ligé na ci pèlerinage am ay connaissance am auto am lepp waaye dama tal sama oto dem ties défi fi volontariat pour nek instituteur instituteur té am naa maîtrise mën naa informatique dirigé naa pèlerinage parce que conseil spécial laa ci nekkoon eh, dem naa ba nekk adjoint gouverneur Màkka maanaam yow ki jiite Màkka yaa yaa topp ci moom muy inspecteur sa xam nga kooku expérience bi mu am noonu xëy rek ñu jox la ay xale naan la alifoon ba on ta on xettoon muus mais eh, loolu boo amul jom ak Pastef doo ko nangu mais loolu loolu lii liggéey bi ma leen di wax des xaw ma sax est-ce génn naa ci sax ba léegi deux mois avant lañ ma affecté ci lycée maa nga ca woon 2010 ba ba fi may wax ak yow même lycée bi ma affecté situation moo leen obligé amatuñu ku leen jàngal ma matière yi charia hein. parce que comme li ma wax nii mooy cas bi da ngay jóge fee jàngee laneen ñëw ñu obligé la nga jàngal làkk arab suñ la affecté ci lycée boo xam ne pur arabe lay jàngale ak charia euh, doo fa mën a dem gars yi dem ba xam ne lii du continuer ñu ne ah nañ seet ku ko mën a jàngale ñu jël ko ñu ne ah oustaz kaay ñëwal jàngaleel ñu lii nga boole kook école primaire ba nag ndax yenn saa nga dem fa ba déwén ñu affecté la mais lii problème la daana bi may jàngale kulliya dafa subhanallah dama doon jàngale kulliya ma leen doon yore woon naa fa mirage di jàngale beneen école franco arabe may jàngal collège ba ak lycée bi man waa man di xanaa man moom may jëmm joo xam ne da ngay jàngale primaire ba université <laughs> benn nit buy jàngale primaire ba université parce que élémentaire bi franco arabe élémentaire français bi da nga fay jàngale ji di jàngale ji ci franco arabe bi collège di len jàngal lycée di jàngale ji kulli bi xoolal loolu loolu xel man nako ko nangu benn nit ba amna compétence jangal ay universitaire amna compétence jangal ñu nek lycée am compétence jangal ñu nek CM waye ñu bayiko ci système Sénégal ci élémentaire ban principe motax nenañ ah sa diplôme bac bi nga yor sa diplôme maîtrise bi nga yor ñun nenañ ba bëgguñu ko loolu problème la moo tax ñii ñëw ne dañuy créer benn euh, direction boo xam ne dafay corriger loolu loolu corriger erreur la bu yàgg bu nekkoon Sénégal boo xam ne demoon parce que mooy mbooloo moo xam ne am na lu bari lu ñu man a jariñ Sénégal nga perte leen ci loolu man dem naa ba ba bind démission pour génn ci jàngale waa déposé ko sama directeur signé ko ba pare bu ma jël ko dem pour déposé ko malheureusement Sénégal tey ma bàyyi ñu ne la doo bàyyi da ngay dem finance da ngay wuti kitis da ngay wuti nangam da ngay wuti certificat d'existence existence xaw ma leen man kay ma ngi ni ma don li bayina naa waaw bëgguma far ci diggante bobu ndaysan ben inspecteur woo ma ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi finance loy def ma ko kayit sangam pour lan ma ko dama démissioner mu ne ma kay fekk ma son bureau ma ñew bureau mu and ak man IA ne ko ki mi ngi démissioner de te li tax muy démissioner moy élémentaire bi muy jàngale mu ne togal toogal danañ ko la jënd fekk yalla lu mu dogal xamul mu don bobu ma ngi won ci business yeeg yoy dara di ñew mais quelque mois lañ ci teg rek Covid bi ne këlëb ci suñu kaw léegi man ak sama njaboot ak ak ñi aju woon ci man ñëpp benn salaire boobu lañ doon lañ doon jëfandikoo moo tax loolu décision la bu mënul ñàkk parce que erreur du continuer rek di dem dañuy dem ba jamono am ñu ñëw corriger ko kon ñoom loolu la ñu corriger yàlla yàlla dimbali leen ci.